كاعتقادي خاد لي ذكر مالك علم خيبي من عليم له حيادي أنادي ديني يا دار حب ذكر حكيم روم سان دوري وسان مجلس نادي آي ربي نفات خير دعينا وكفاني طوي الشقاء والعناد انت تلوت الكتاب فزت ثوابا عاصما من يوم ينادي المنادي درس عمري عن الأساس كرابي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 asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi déglu rajo RFM quatre-vingt-dix-huit point quatre ñoo ngi yëkkati sunu kàddu di nuyu di siyaare di ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaxa sunu borom defal ko aw fan bu gudd loole ak wér li mu yéene liggéeyal Sëriñ Tuubaa lépp moo defee ko nam ko soobe di siyaare mboolem umma islam bi ci bis bu tedd bu màgg bi di ñaan lépp luñ ci jaamu yàlla ci bëccëg gi ak ci guddi gi ko suñu borom nangu te defal na ko ci suñu téere jëf di ñaanal way daw li nga xam ne jiitu nanu yal na yàlla jéggal leen te yërëm leen tàbb leen àjjana firdawsi di ci ñëw tey ci xew-xew bi nga xam ne tey moo xew ci yoonu murit wala moo xew ci eh, islam bi muy kenn ci taalibe Sëriñ Tuubaa yi nga xam ne danoo jaayante woon ak moom façon ko yéene liggéeyal ci seen ak dund ak ci seen ak dee loola sëriñ Atou Diagne mi nga xam ne yàlla dogal na moo jiite woon daayira bi ñuy wax daayira Hizbut Tarqiyyah ñu daayira boo xamante ni yaakaar naa ñi bokk ci yoon wi wala ñi ci bokkul sax xam na daayira boobu seen taxawaay ci lislaam ak ci yoonu murit daayira boobu nag moo ko jiite woon bis ni tey jii ci alxamis ji doon wax ci fajar gi la wàcc liggéey dem noppalu ji fële nga xam ne moo di ci àjjanay firdaw suñu ñaan suñu borom tasale ko moom seexul xadim euh, di ko jaale ki nga xam ne moo di kilifa yoonu murit di seex Muhammadul Muntaxa tey ab gor tey jullit tey taxaw taxawaay bu rafet ci mbir mi ak meneen mbir mudul mbir mi sax nii la ciy taxawaay mbiram tey mi moom euh, dafa dafa ràññeeku lool lool lool lool lool ci taxawaayam kon ñu ngi ko koy jaale jàpp naa ne ñëpp a ñàkk waaye moom moo gën a ñàkk ndax moom wéttalam la woon doonoon xaritam mu doonoon ab soppeem yi tamit ñu àndoon ñoom ñaar di liggéeyal Sëriñ Tuuba euh, loola nag tabaarfakàlla bi nga xamee ne yàlla dogal na mu xole ko nii bi mu demee ba takkusaan tey ci takkusaan gi bi mu xëyee bi mu yëg xibaar bi rek la dem ca daara Hizbut Tarqiyyah toog ba waxtu julli ajjumay jot <coughs> mu delluwaat dem ci jumaa ji julli ji bu mu jullee mu ñëwaat bi ñu ñëwee bi ñu jullee takkusaan lanu ko jullee yóbbu ko ca barab ya mu toog xaar waa ña nga xam ne ñoo ko yóbbu woon ñam yónni woon bi nu dikkee ba nu julli timis ci lay soog a oññeekuwaat wala gee lay soog a delluwaat ci këram kon won na ne mbir mi mbiram boppam la bàyyiwu ko woon ci loxol kenn lu dul moo ko téye téyeloon boppam ba jébbal ko sëñ Tuubaa kon nag ñu ngi koy sant ñun mu yëpp di ko ñaanal waaye sëñ moodu mbir mi ñu ngi yëkkati kàddu ci turu waa RFM yëpp nag ñoom di leen ko jaale moom mu xewee ba léegi euh, taxawoonu groupe bi bi ñoom ñëpp ñoo àndandoo wax dëgg yàlla taxaw ci taxawaay bu rafet boo xamante ni euh, bu bu jéggi dayo la rawatina ci kon yal na yàlla ñu ngi yëkkatiwaat suñuy kàddu yu njaal di ko jaale mbooleem ci turu groupe bi nekk fii ci Dakar ak fii nga xam ne ci njiitul Alaaji Asan Gay ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo ko bokk rek wax dëgg yàlla ñoo nekk ci kii bi Euh, mu doonoon koo xamante ni moom sëñ aatu mi tey jii mu am tawféex joo xamante ni euh, jàpp naa ne li fa teew ci mbooloo euh, waxuma ne gëj na noo teew ci mbooloo wala mësunoo teew waaye bàq ya de moom ba nu ko ubbee ba léegi di fa denc la fa dugg tey ci nit ngir di ko gunge ak di ko tinul ak di ko ñaanal mësunu faa dugg loolu moom jàpp naa ne kenn du wax ne dañuy def mu baalax wala dara waaye ña fa demoon ñëpp ñëpp ñëpp commencé nañ ci xam ne mbooloo mi ba nu ubbee amee bàq ya ba léegi mësunoo mbooloo mu toll ni duggandoo fa ngir ne dañuy am ku gunge rek wala ku ñuy yóbbu ci këram gu mujj loola nag du mbokk la wala xarit wala jële waaye waaye jëflante gi mu doon jëflanteeg Sëñ Tuubaa la murit yëpp seere ci seen xol rafetlu ko moo tax murit yëpp nag àndandoo dem di ko jébbal yàlla waaye di ko teg ci loxol Serigne tubaab mi nga xam ne euh, moom la nu moom la yaakaaroon te ko liggéeyal murid yëpp àndandoon ak di ko xamal ne ko ci liggéeyal na la ba wàcc tey jii ñu ngi koy indi fii nag te xam nañ ne ginnaaw yàlla yow lan ci yaakaar yaakaar joo xamante ni joo xamante ni saram mu lan yaakaar mu taseeg moom loolu nag jàpp naa ne ñëpp rafet nañ ci njortu kon yàlla na ko yàlla defal suñu aatu yàlla na tëdd ca firdawsi noppiloo fa yal na taseeg njëggalal sunu borom yal na ko yàlla defal foofa di noflaayam bu noflaayam bu tedd ca fi àjjanay firdaws euh, loola nag tax na ba mbooloo mépp sëñ Modou boo dikkoon ci denc bi sa yaram day daw bi ñu ko jullee ba nga génn boo génnee ci fi nga xam ne moo di waañ wa jigéen ñu yiw ñu tedd ñooñu nga xam ne nampatal nañ leen ci lislaam nga xam ne du rus na noo jaxasoog ay góor ñoo xamante nii du suñuy góor rus na noo nekk sax di wane dara ci seenu yaram wala dara di feeñ koo ca gis ma nga muuru euh, muuraay yoo xamante ni lam lay fàttali wala la ngay jàng mooy muuraay ya nga xam ne soxna yu tedd ya daanan ko muuroo muy soxna jaaratullahi mariama ak ñu tedd ñooñu ak muuraay yu soxna may munatul kubra soxna may muna mi nga xam ne moo fi mujj di borom leylatu xadar muuraay yooyu rek la xale yi la ñuy gis ci jigéen ña waaye bi mu jullee ba ñëpp rombaat leen di wàññeeku yuux yi dafa mel ni foo toll yaa ngi dégg xol yi ak rangoñ yi di dal ci seen dënn yi ndax xam ne ñàkk nañ koo xamante ni ku rëy rëy rëy la nga xam ne la muy fàttali jullit yi rek mooy ba Seydina Amsa wàccee liggéey ci Uhud eh, na nga xam ne na la saxaaba yi doon jooye jooy yooyu rek la lay fàttali ci jooy yi nga xam ne eh, tey ji jooy nañ ko tey ci Hizbut Tarqiyyah ndax rangoñ ndax xam ne jàmbaar daanu na jàmbaar joo xamante ni kuutaayam jafe na lool dina jafe lool waaye nag yàlla lu nekk am na ko rawatina sëriñ bi moom la doon liggéeyal te nga xam ne day tànn ay nitam ñu koy liggéeyal xam nañ ne daara Hizbut Tarqiyyah ba léegi a gin fasante woon ak sunu borom fasante gu suñ Tuubaa du fecceeku mukk yaakaar da ci gën a dolleeku bu baax a baax waaye nag loola tax na tey jii mbooloo mi foo aw ci mbedd Tuubaa yi da ngay defe ne mbedd la moo xam ne dangay ngay defe ne mbedd mii dong la ay nit jóge di dem ca bara barab ya wala di ñëw ca daara Hizbut Tarqiyyah mbedd yépp oto yëpp fu nekk mbedd nit ñi góor ñi jigéen ñi ñëpp génnandoo ne dañ koy gunge di ko yóbbu ca këram ku mujj loola nag damay wax ne képp koo xam ne yaa ngi liggéeyal sëñ tubaa te lee mu am nga bëgg ko bul jéem a nax sëriñ bi waaye bul jéem a nax sa bopp la sëriñ tubaa waxoon ne bi may liggéeyal yonante bi bi may liggéeyal suñu borom naxuma ko waaye bi may fay naxuma ko rawatina képp koo xamante ni dañ laa teg ci bopp mbooloo wala dañ laa def jëwriñ ngay liggéey mbooloo mi di la wër wala ngay liggéeyal sëriñ bi na nga yëg ci sa bopp ne foo toll ci sëriñ bi yaa ko tollale loo ëllëg wala loo gestu ci nit ñi mënoo ko cee am xamal ne vérifier sa bopp bul vérifier nit ñi waaye vérifier sa bopp waaye tey jii de képp koo xamante ni yaa ngi jëwriñ wala teg nan la fenn nga fay liggéeyal sëriñ bi wala yow yaa jiite daayira sàngam wala yaa jiite eh, nangam wala yaay responsable nangam boo xam ne da nga leen teg ci bopp murid yi ngay jottile kàddu ci sëriñ ba wala ngay jottile dara ci ñoom loola na nga yëg ne suñ aatu mi royukaay la ci lii mu am de kenn ku nekk war ngaa jéem noo ko mën a amee ndax ban ban côté ngay mën a jaar ngir amale ko ndax liggéeyal na doomi sëriñ Tuubaa yi liggéeyal sëriñ Tuubaa yi ba tey sëriñ mun Muntaxa li nga xam ne tey jii moom la somb muy université bi man nañ la la ca gën a gën a rëy ak la nga xam ne euh, mooy xaside yi sëriñ bi def ko moom ba mu koy def sax ku nekk xam na ne sëriñ bi da koo nattale woon ci nattale bu yem waaye ci xëruk aatu ak jàmbaar ak sëriñ aatu ci la ko àggale àggale boo xamante ni ca la ko mébét mébét ju rëy ba nga xam ne daanaka ay millions et mooy dem ca liggéey ba te liggéey ba ba léegi ma ngay dem sëriñ bi nag gis ngeen ne ba mu koy daanaka loolu mën nañ ne garaat la ndax boo ko sëriñ bi di ko takkal médaille boobu di ko wax ne ko liggéey bii nag liggéey bu ma fonk la bu ma bëgg la waaye kenn dong laa bëgg ci àndal muy sëriñ aatu mais nga xam ne seen xasida yi mooy seen lépp mooy seen lépp ñoom laa bëgg àndal liggéey bi sëñ aatu dafa siggi ne ko caabi rek laa laa séq yow gor su waxee nag yeew na boppam caabi laa fas yéene ko séqal bu doon dem ba milliard tamit dinaa fas yéene jox la sama caabi te loola jàpp naa ne ba mu koy wax da ko waxoon ci turam waaye turu mboolem bu tarxee yi mboolem murid yi la ko waxoon kon liggéey boobu bu mu taxaw aatu moom ëllëer bi damme na wala bàngaas bi fàqe na ci biir ngelaw li la fàq ci biir ngelaw li ci biir taw bi ci la bàngaas bi daanoo kon wàcc na nawet boobu incha allahu rabbi nawet buy àgg lay doon boo xamante ni eh, day dem rek di dem kon suñ aatu doon na koo xamante ni ku lewetoon la ku yaatu woon dënn waaye ku ñeme woon la bisab tayam bi li mu koy fàttale rek gis la bu mu doon waajal moom naka jekk bakkanam daf ko summi woon ngir Sëñ tubaa am li mu bëgg saa buy faatu fu ci mën a faatoo rek na na faatoo ci lu Sëñ Tuubaa di ame ndam moom loolu moom moo taxoon aw fitam kenn kenn kenn ñemewu woon aw fit wu rëy la yoroon woo xamante ni fitu góor la yoroon tey jii nag euh, bis bu nekk ak waxtu bu nekk daanan gëm faatu ne am na waaye tey ji leen gëm ne faatu nag jàmbaar ndekate dee du bàyyi kenn tey jii la masa tëdd tàllal ñi yëngutu nit mën a wax tontuut wala nit mën a yëngal ma kàddu wala nit mën a kii yëgu la tey jii la ko masa def waaye bi mu nekkee ba léegi xàmmee ba léegi mosul tekk laxasaayam mosul tëdd ak feebar ngir dara mësul xiif tëdd ko mësul mar ngir tëdd ko mësul sonn ngir tëdd ko waaye tey jii nag la nga xam ne moo di malaakal mawt te sunu borom yabal malaaka ngir mu jël si mu tëral ko tey jii lañ soog a tëdd waaye naka jëkk mu fi nekk mësul xam lan mooy tëraay mësu koo def ndax tey jii la doon def te xam ne ne saxaaba yi la ci doon roy te saxaaba yi lii moo tey faatoom gi faatu wut ak ku wut ak ku faatoo badar wala ku faatoo uxóot ndax ci liggéeyub sëñ tubaa yu xaside amul lu mu gën a fonk lu xasida yi ca fan kër gi doon wutal xasida yi goo xamante ni gu jéggi daya ci kër googa fala bàngaar boobu fàtte fàgge fala wute suuf jàmbaar dem na góor dem na euh, boroomu fit dem na borom ngor dem na borom alal borom koo xamante ni wutoo woon alal li doonoon sam koom mooy sëñ Tuubaa moo doonoon sam koom moo daan bégal sa xol moo daan yëngal sa xol waaye amul leneen luy yëngal xolam tey jii nañ ci lan xam ne góor dëgg dëgg dëgg góor dëgg dëgg wàcc na jàmbaar dëgg wàcc na boromu fit dëgg wàcc na borom ngor dëgg wàcc na ku xamante ni la lam jaayante woon kullëre am fasante woon ak sëriñ bi fasante woon kook njabootu sëriñ bi fecc wu ko banam fecc ba mu ba nam wuy suñ borom kon la ñuy séentu ci moom mooy mu tëddu noppalu mooy mu noppaloo àjjanay si mooy mu dalloo foofee nga xam ne ku mas a liggéeyal yàlla am nga fam taax am nga fa kër foofa na ji këram ci bar sàq yal na tijji këram ci yi àjjanay firdaws mu tëdd fa noppalu fa noppuloo fa ca xasida ya nga xam ne fale ko sëriñ bi mujjë liggéeyloo tey jii fi ñu ko julee muy jàkka joo xamante ni jumaa joo xamante ni daf ko naal ngir roy ci li sëriñ bi muy jumaa ju palaa bu mel ni palaam njaarim foofu lañ ko julee mu dem ci këru xasida nga xam ne fa la wàcce jàpp naa ne ñaar yooyu fu mu toog di ko alawte ko julli di alawte ko ne ko yaama doon liggéeyal lii jumaa yi ne ko yaa ma doon lii te wax nañ ne képp ku tabax lu toll ni benn kaafu përëntër ngir jumaa wala ngir jàkk ëllëg yàlla dana la tabaxal ay njënd te ay njënd di lay am rawatina xasida yi nga xam ne sëriñ bi daa waxoon na xasida ti faaxat xasaay del kiram wali taqood abadan xayral maram tey jii dina am kër ca kër ak julli waaye dana am kër ak xasida goo xamante nii fa lay tëdd nopp loo ko jàpp naa ne lan cay wax lépp dootuñu xam luñ cay mën a wax ndax tey moom wax dëgg si yàlla ñëpp a yëgandoo ñëpp a yëgandoo dëkk bi boo tëddoon sax tëj sa néeg wala nga tëdd nekk yëngu-yëngu bi ak xew-xew bi dana la fekk ba ci sa biir néeg loolu lu ko waral mooy pëstéef ak pas-pas ak ngor ak jom kon nag euh, li kenn doon wax ne sëriñ bi loo dof dof dof loo yeewu yeewu mënoo nax sëriñ bi waaye loo dof dof dof sëriñ bi du la nax xam na ne tey jii sëriñ bi naxu ko ndax ña fa doon dem ak di ko taxawu ji du ci wàll danoo bokk ak moom ci famille wala deret wala dara waaye bokk pas-pas moo tax ñëpp génnandoo seen kër amul kenn koo xam ne dañ laa woone la na nga mën a teewe si wala dara waaye ñëpp génnandoo ñëpp mel ni sëriñ bi dañ leen génn leen kër gi gungeel ma indil ma ko ba tegal ma ko ci sama wet xalifa général génn Cheikh Mamadou Mountakha ñu jullee ñu yóbbu ko kii jaanam wàcc na ci la mu dëlante woon ak sëriñ bi wàcc na ci jàpp naa ne kuy ñee nit wala ngay ñee taalibe sax danga ko ñee tey ndax lii mu am euh, da ngay wax ne euh, ndax nit ndax ku koy amaat ndax ku koy amaat kan moo ko mën a amaat dëgg la ku ko mën a amaat bari na mooy ku def na mu defoon amaat ko ndax la fi sëriñ bi doon joxe ak la muy faye ba léegi ku naxut sëriñ bi ci liggéeyal ku waroo ko sëriñ bi du la war mukk mukk mukk bis bi taxoon mu doon liggéeyal sëriñ bi nag mooy bisub tey jii mooy bis bii nga xam ne dem na ba tëdd atu ku nekk xam na ne suñu aatu ku nekk xam na ne daara bu Tarqiyyah ji moo ko taxawal ba bu yàggut jamono suñu Sidi Muxtaar mille neuf cent quatre-vingt deux mille seize yaakaar naa wala deux mille quinze ci lañ doon def seen quarante ans quarante ans yoo xamante ni ba daayira bi taxawee ba léegi kon nga gis ne yàlla dogal na quarante ans yooyu euh, moom mi ngi juddu mille neuf cent cinquante cinquante et ba vingt et un soixante-dix ans la kon mën nga ne quarante et wala fanweeri at ba mu amee ñaar fukki at ak ñett wala ñaar fukki at ak juróom kon ci la nekk ci daayira bi ba quarante et un léppam ci sëriñ bi la ci la amee karaw gu ñuul ba mujj mu am karaw gu weex kon léppam ci la ko def sëriñ bi nag ku ko jox sa karaw gu ñuul dina la defaral sa karaw gu weex boo tëddee ba nga jëg ne doo ñee mukk mukk borom karaw gu ñuul doo dox ci mbedd mukk ñee ko ñam doon jàngandool di toog ci bureau yi Euh, ku nekk jàpp naa ne la nga doon wut ci sa àdduna am nga ko waaye moom it li mu doon wut ci àdduna am na ko te tey alaxiraam rafet na alaxiraam ku nekk xam na ne tey jii bu taseeg Serigne Touba mbégte dong lay doon ci moom kon mbiram yëpp daf ko jëloon jox ko bi Serigne bi nag ñii rek la séq ak ñun mooy ku ko liggéeyal mu fay la ku ko liggéeyal mu fay la kon nag ñun ñëpp nañ yeesalaat suñuy pas-pas xoolaat suñu kii kon nag ñu ngi yëkkati kàddu njaal di ko jaale njaboot gi ñëpp di ko jaale doomam sëriñ Seexuna mi nga xam ne Seexuna Jaañ moom it ku nekk xam ko ci kuréel beeg njàng mi ak ñu yar ko ci namputal ko ci ñu ngi ko koy jaale bu baax di ko jaale mboolem waa daara ji ñoom ñëpp di ko teg ci loxol sëriñ Yuusu Jóob sëriñ Lamin Juuf euh, ak mboolem waa daara ji bàyyiwunu kenn ciy góor ciy jigéen jigéen ñoo xamante ñu yiw leen ñu yar leen yarab lislaam ñu am ak taalibe jël seenu ñaq heure bu ñuy dem kër sëriñ Tuubaa la gën la ñuy wax ne euh, la gën la ñuy jël di ko yóbbu di ko jox sëriñ bi loola nàmpatal na leen ji kon ñu ngi sant ñëpp di ñaan yàlla na fi yàlla yàggal Cheikh Mamadou Mountakha taxawaayam rafet na lool taxawaayam rafet na lool lool lool lool te loola jàpp naa ne kàddu gu suufee koy wax te ñi koy wax ñu bare bari la xam na ne tey taxawaay bi mu ko taxaw xam na ne li ko boole woon ak moom muy sëñ Touba tey tax xam na ne tey ji taxawu na ko taxawaay bu leer boo xamante ni te leer na ma ne suñu aatu ku ko laajoon lu la boo fiy jógee loola gënal ku la koy taxawa xam naa ne jamono yooyu ak fu mu mën doon rek dina la tudd Cheikh mun Mountakha loola nag dafa mel ni yàlla defal na ko yàlla may na ko li mu dund man nga ne bariwul man nga ne bari na waaye xam naa ne ci pas-pasam dañuy wax ne sëriñ bi juróom-ñaar fukki at la dund ak juróom wala ñeent waaye leer na ma ne ci bëgg sëriñ Touba fasut woon yéene romb sax lu romb sëriñ bi moo tax kon tey jii na dem noppalu ji te yonante bi nee na woon li ëpp ci seen dund mooy juróom-ñaar wala juróom-benn yàlla yóbbu na ko na te yoon waa ngi nii nag nan xam ne ñun ñëpp te amul ku jomba liggéeyal sëñ Touba xaside yi lim ci def ak limu ci kii ñoo xam ne ay jàngkati tubaab lan woon nekkoon ci kii bi ku nekk jàppoon ne yow mënu leen a jariñoo sëñ Touba jariñoo leen ñu dikk moo ne modèle ci yoonu sëriñ bi wane ne sëriñ bi na mag ñu toppee woon ak ñu ànd woon moom doon gone ak ñàkk koo fekk du tee ñu ànd ak ñoom ñu jël seen lépp àdduna soxla leen ndaw soxla leen lépp soxla leen ñu jaay lépp wan ko jox ko sëñ Touba loola nag yal na ko yàlla Serigne Touba taseel tey jii mu taseeg ràmmum Serigne Touba ci biir bàmmeel mu taseeg ngërëmal Serigne bi yàlla yokk ko yàlla defal nuy tamit ñu doon ay murit yoo xamante ni li bëggoon a doon daal jàpp naa ne ñaan gi doon ñaan yàlla di ñaan nag murit saade jàpp naa ne tey jii nekk na ko tey jii moom ñëpp jullit yëpp ak taalib bi yëpp mën a seere ak murit saade xam ndax lii mu am ku nekk xam na ne ku dut murit saade mënu ko am ku dut murit saadix nag ñu ngi koy ñaanal yàlla ko yàlla noppal yàlla ko yàlla yal na ko yàlla tàbbal àjjana firdawsi ñu sant bu baax daayira Hizbut Tarqiyyah yi yëpp di leen ko jaalewaat bu baax a baax wan ñoom it waccal nañ leen fi sas bu rëy a rëy rëy te nam xam ne tamit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu fi jógee Seydina Abubakar dafa taxaw wax ne képp koo xam da nga daan jaamu yàlla yàlla moom jóge du fi jóge képp koo xam daan jaamu yonent bi nag jóge na fi nit ñi rek la baaxoo ku nekkay dem ñun ñëpp ay dem ñëpp ñëpp ñëpp ku nekkay dem waaye liggéey yàlla du taxaw liggéey yàlla du taxaw kon nag na nanu xam ne ñoom ñii fi nekkaat ak ñeneen i murit nanu xam ne responsabilité ba léegi mi ngi am liggéeyal sëriñ bi mi ngi fi des ba léegi pas-pas mi ngi fiy des te ku nekk xam na ne ku liggéeyal sëriñ bi sëriñ bi dina la boppam kon nag ñu ngi leen di soññ di soññ suñu bopp ñu xam ne dara jaru fi dara dara fi dara nga xam ne liggéeyal sëriñ bi rek moo fi jar dara waaye àdduna dara jaru fi dara nga xam ne ne liggéeyal sëriñ Tuubaa moo am njariñ fii ci àdduna ëllëg yomal xiyaame tamit moo am moo amaan njariñ te ko dugg ci bàmmeel da nga réccu yaa xam boo demoon sawara da nga réccu lu la fi indi waaye boo demoo àjjana di nga réccu lu la tee liggéeyal lislaam lu la tee liggéeyal sëriñ tubaa lu tamit li nga doon liggéeyal sëriñ tubaa nga def ci sa lépp tey jii kon ñi ngi sant ñëpp di ko gërëm di ñaan li nga xam ne def na ko ci yoon wi mu doon symbole bu rëy rëy rëy rëy bu rëy njàngam xasida yi bu tasaaroo ci kuréel yi Euh, nit ñi yiw doon ay murit bëgg doon murit saare bëgg gé bëgg liggéeyal sëñ Tuubaa bari na lu mu ci liggéey kon nag ñu ngi koy ñaanal yal na ko yàlla tabbal àjjana firdawsi yal na yàlla jéggal ko yal na yàlla yërëm ko yal na yàlla tasele ko yërmandeem yal na ko Serigne Touba rammul boppam yal na taseeg rammum Serigne Touba Modou daal lii ñu ngi koy wax ci kàddu yoo xamante ni kun xamoon la koo xamante ni ku dëggu la woon koo xamante ni amul woon deltu ginnaaw ciy waxam du deltu ginnaaw ci jëfam du deltu ginnaaw ciy waxam du fecc kóllëre du war lu mu waxante yow lu mu nar la lu mu man la lu mu mënul tamit kenn mënu ko cee dugal nit la woon ko am ak dogu ko amoon pas-pas koo xamante ni ak loo rëy dara rëyut woon ci bëtam dara dara dara rëyut woon Sëñ Tuubaa rek rëyoon ci wetam moo rëyoon ci xolam moo rëyoon ci bëtam moom la daan waxe moom la daan waaje waaye dara dara ci àdduna rëyut woon ci moom dara rëyu ci woon koo xamante ni li nga jiite ci mbooloo ak li mu toll waaye dara gisu ko ci woon gisu ko ci woon ci col gisu ko boo ko xamul sax dan la koy wan ne la moo nekk ne waaye du ci tool du ci waxin du ci dara waaye sëñ Tuubaa liggéeyam bi na am lool rek moo bëggoon la bëggoon yàlla na ko yàlla tasaleeg sëriñ bi yàlla na ko yàlla jéggal ñu ko dolli di ko ñaanal ndax ñaan du doy euh, itte woon na ko fi mu toll itte woon na ko te soxla na ko kon ñu ngi ko koy defal di ko fas di ko ñaanal yàlla jéggal ko yërëm ko tàbbal ko àjjana firdawsi ñu ngi sant ñëpp xam naa ñu ngi doon laaj sax sarax si ba léegi euh, amaguñ ci woon lu leer waaye xañ na jombul Euh, dinañ ci am lu leer balaa fii ay fan wala fii ak na guddi gi xëy na luñ ci xamit bu soobee yàlla dinañ ko jéem a jottali Modou ñu ngi lay sant ñu bàyyi laak programme rajo Futurs Médias bu ko defee ñu indi xutba gi nga xam ne sëñ Mbàkke Anta moom itamit def na ko sëñ Mbàkke Anta mu di xalifa sëñ sëñ tàkko moom itamit di def ay xutba yu am solo ñu leen ko indil kon ñu indil leen xutba mboobu bu ko noppee ñu feen continuer programme bi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu